àndal Gandia Fam la essentiel bi ndeysaan essentiel bi moo nekk noonu moo sol casque bi ngeen di gis noonu ndeysaan boo gis Gandia Fam la fekk ci wetam gaaña faama ngeen di gis noonu muy romb mu ngi noonu ndeysaan xale bi dëkk Bettenty waaw waaw waaw ko xam ak dafa mel ci la ci gis la ci lan moo waral waaw de loolu lu tax mooy suñu bi gagné fa parce que mooy suñu champion bi champion ñoom baatu ñoom baatu la moom moo tax tey jii ñu si dëkk bi ñoo fii nii quoi ñu def ginnaaw su ko tax moom ak équipe wax ñi nga xam ne ñoom la ma leen di wax xanaa ñu ànd ak dal rek ak yàlla waaw si kaw rek moo ñu fi jaajëfal nañ la jërëjëf jërëjëf ñeejëw fay naa waaw tey bu ngeen ñëwee andi Gandia Fama ñoo gunge leen bàyyi ñi nga xam ne ay soose la bëri seen ba dama bëgg nga wax ci soose li nga xam ne moo leen fi andi tey waaw salaamaaleykum Ya, alhamdulillah rabbil alamin comme dua dua dua dua dol do ma dol bari limma de tuba ko ganja fama prince de dombado bi wal um keda aren senegal sediao man ngol de na dan ka eh, ko ka de ñola ina da ko ma ko kala ma ko se ko do ka sem nunnaɗa sija tumna wala na ɗo baro gondi dal kam waɗɓe ka so confiance ola quoi walnaɗa on sija anana parce que Gandia Sarr c'est un champion boo xam ne si Sénégal léegi ñëpp ko gañ waaw comme ni ma ko waxee ci soose rek ka ñëpp am champion la et au moins euh, ñun ñoo jógee pétanque soose yëpp voilà mobiliser wu pour ñëw supporter Sénégal loolu fierté la ci ñun quoi alhamdulilah championnat boo xamante ni bu taxawee bu mu taxawee daal gars yi dañ koy sentir quoi dañ ciy sentir comme champion moo taxaw alhamdulilah loolu waa Seydou Faye. waaw man la Lamine gars yi kenn ma ne Pablo le vainqueur. waaw wax. Mor Lamine maanaam yow ci préparation bi la waa ñoom Fatou naka la ñoo ko jaaree seen waaw waa ñoom Fatou maanaam mobilisation bu taw rek te noonu mooy gunge seen doom maanaam gunge seen seen seen jarbaat seen champion wan na ñu ngi seen ginnaaw tey ñu ngi seen ginnaaw fële donc loolu kas la ñu te lii nii nii nii bu ngeen gis bi tey maanaam nii lancement bi comme am ni trois jours lañ dem tey